bonjour bonsoir asalaamaaleykum waa seen mobile tv te dañu ñëw tey une nouvelle vidéo tey vidéo bi nag lan lay con lan la concerne mooy li nga xamante ni moom live boo leen xoolee li nga xam ne mooy Prism live moo nek benn application bu lay permettre ngay mën a def live sa téléphone boo leen xoolee defoon nañ si benn vidéo nan ngay faire live di couvrir événement Faut expliquer woon nañ une vidéo bi mais dafa am ñeneen une ñuy demandewaat nan la reprendre live moo xam Instagram. wala euh, Facebook wala feneen quoi nga bëgg jël live boobu noonu di daw nga indiwaat ko li nga xamante mooy sa chaîne YouTube muy daw sa seen YouTube quoi te loolu la leen bëgg ñëw tey wan leen ko sans plus euh, dama leen invité na ngeen abonné euh, te activer la cloche surtout ngeen seetaan vidéo bi du début jusqu'à la fin bu ko defee di ngeen comprendre nan ngay mën a jëlee li nga xamante ni mooy benn live Facebook wala Instagram bu ko defee nga reprendre ko li nga xamante ni moom mooy sa YouTube. ba leen xoolee li nga xamante ni mooy application Primula euh, Primula Studio la moo nekk nii ñun téléchargé nañ ko pare waaw moo nekk nii ci suuf léegi dañu ciy dugg dañ ko dindi woon sax mais dañ ko installé waat dañ ciy dugg boo leen xoolee buñ si duggee nii lay mel logo bi moom moo nekk nii quoi gis nga Primula Studio léegi dañ siy cliqué bu ko defee ñu patienté bu ko defee li nga xamante ni moom mooy euh, application bi mu ñëw bu ko defee ñu wan leen. déjà defoon nañ ci benn vidéo expliqué nañ leen quelques détails ci premier vidéo bi mais bii ñëw rek pour montrer leen nan ngay reprendre live léegi da ngeen di bari pour Facebook la xam nga deuxième bi Google pay Twitch mais da ngeen di jël li nga xamante ni mooy Google boo leen cliquer Google rek mën na leen laaj fekkee compte yu bëri ngeen yor mu laaj leen ban compte ngay jël et cetera bu fekkee benn compte yor mën na connecté directement léegi bu ñu cliquer ci li nga xamante ni moom mooy Google bu ko defee ñu accéder ci li nga xamante ni moom mooy Money Prism Live bi léegi dañuy patienter. cliqué nañ si léegi dañuy patienté bu ko defee mu ñëw léegi dañuy def ok léegi ñu def autoriser ci kaw autoriser son bi pour muy mën a jël enregistrement bi et léegi dañuy def noonu waaye bu ko defee ñu patienté léegi li nga xamante ne mooy Prism Live bi ñëw na léegi dañuy patienté bu ko defee ñu wan léegi dañuy def ok li enregistrement bi la moo tax muy def noonu mais boo doon xoolee. Euh, prise mi laa nii la mais bu fekkee da ngay def euh, reprendre dekk ji nga fi ma teg suuri bi nii quoi fii ngay bës gis nga léegi nga def ok léegi pour autoriser li nga xamante ne mooy application bi pour muy mën a si li nga xamante ne mooy arrière léegi dañuy autoriser application bi mais que gis ngeen bu baax a baax fi ma teg souris bi foofu da ngeen koy fa ngeen fa la euh, section bi war a nekk bu fekkee da reprendre live léegi dañ koy autoriser dañuy def retour autorisation moo nekk noonu léegi dañuy génnaat bu ko defee ñu jéem a def retour lii enregistrement téléphone mooy def nii ko mooy mais désolé léegi dañuy génnaat gis nga ma fàttali leen ko gis nga fii nii la affaire bi war nekk léegi ba pare mën nga bës réduit te bu ko defee léegi paramétrage yi wanoon nañ leen ko ci vidéo benee passé paramétrage yi mooy maanaam nan ngay defee titre et cetera léegi bu fekkee da nga bëgg a def titre. fii ngay bës gis nga bu bësee mooy seen YouTube ngay sélectionné fii ngay sélectionné fii ngay def yow defee mu mën seen YouTube léegi bi ngay jël léegi bu ko defee nga def li nga xamante ne mooy chaîne YouTube léegi da ngay connecté waat euh, chaîne ko ko wanaat léegi dañuy jël chaîne YouTube léegi dañuy nga xamante ne mooy suñu adresse email moom la ñuy dugal pour connecter Prism Live ak suñu chaîne YouTube bi ñu bëgg a dawal li nga xamante ne moom mooy direct yi léegi dugal nañ suñ chaîne bi ni ñuy defee vidéo yi la moom lañ ko bëgg a dawal dañ mais dañ leen wan rek parce que chaîne bi defuñ si ay direct mais yéen ñi nga xam ne yéen a yor seenu buzz yi yéen a koy soxla léegi dañuy def suñ email après qu'est-ce qu'on va faire léegi dañuy def si li nga xamante ni mooy suñu mot de passe léegi suñu mot de passe la ñuy def léegi dugal nañ suñu mot de passe léegi dañuy patienter léegi bu ko defee ñu def li nga xamante ni moom mooy euh, suivant léegi ñu patienté autorisation de facteur bi ñëw lii boo leen sécuriser seen compte leen koy laaj léegi dañuy autoriser pour ñu ne ko ñoom moom compte bi dañuy waaw léegi dañuy def autoriser bi autoriser waaw maintenant ñu patienté waat léegi li nga xam mooy Prism Live bi dafay chargé léegi bu ko defee ñu am accès suñu compte ak Prism Live bi léegi gis nga léegi dañuy sélectionné suñu seen YouTube bi quoi suñu seen YouTube moo nekk nii seen YouTube bi la quoi moom la ñuy sélectionné bii. duñ bëgg def vidéo yi duñ bëgg def direct bi bu ko defee ñu patienté léegi da ngeen autorisé waat suuf ngeen dafa autorisé bu ko defee ngeen mën a am accès ci kii bi léegi après avoir fait autorisé da ngeen di patienté léegi da ngay defaat connecté tout YouTube gis nga léegi ñëw na boo leen xoolee ci kaw moom mooy turu chaîne bi gis ngeen ko noonu ma nekk noonu turu chaîne bi bu ñu wàccee ci suuf public la wala privé wala du moins non no répertorié wala li nga xamante moom mooy privé léegi ñun dañ koy def non répertorié pour bañ vidéo live di daw suñu chaîne YouTube parce que bu ñu ko defee public rek bu ñuy wane jàngal vidéo bi nii vidéo bi mën na daw suñu kaw chaîne YouTube foofu la ñuy jëlee miniature foofu mooy titre gis na fi ma bës bu fekkee da nga bëgg bind titre fi nga koy bindee sa titre bi nga bëgg a def ci vidéo bi nga bëgg reprendre moo xam exemple Ousmane Sonko en direct exemple Ousmane Sonko di def direct xam nga bëgg bëgg reprendre direct boobu léegi da ngay jël même titre bi wala nga def sa titre boo ne Ousmane Sonko may def direct et nga bind ko fii léegi dañuy bind Ousmane Sonko en direct léegi bu ko defee leen c'est juste un exemple ah mais yéen mën ngeen def seen euh, kii après boo leen bindee foofu noonu Ousmane Sonko exemple regardez ci suuf moom mooy li nga xamante ni moom mooy sa description gis nga description bi ci suuf nga koy defee yéen nag description mo xam ngeen ko ba ngeen dem copier seen description bi ñëw coller ko fi wala ngeen bind seen description quoi xam nga mais d'inscription bi moom si suuf la man damay bind euh, merci de vous rek pour pour wan leen rek après ma jàll ci seen description moom man ngeen dem copier ji seen description bu ko defee ngeen ñëw kole ko fii après ngeen def doon ci kaw ngeen en enregistré ko léegi après avoir en enregistré foofu boo xoolee moom mooy révolution bi bu fekkee sa connexion baax na euh, mën nga ko yokk ci cent mille mille quatre-vingts pixels boo see foofu. 1080 pixels mooy gën leer mais bu fekkee sa connexion dafa xaw mais yi ci suuf moom mooy faible mais 720 pixels bi baax na mën ngeen ko fa bàyyi wala bu fekkee connexion haute débit ngeen yor ngeen ko yóbbu 1080 pixels parce que qualité image bi mooy gën leer full HD lay e doon quoi léegi maintenant fi baax na léegi dañu def ok boo leen xoolee fi la ñuy jëlee miniature gis nga logo boobu noonu du moins logo bu ndaw boobu noonu ci roq bi ko arma déplacé kii bi gis ngeen foofu noonu fa la ngay jëlee miniature maanaam sa miniature bi nga bëgg a def ci live bi quoi ñu nga boo bësee du moins foofu pour intro la bu fekkee da nga bëgg a def benn vidéo intro ci biir direct bi xam nga mais bu fekkee c'est pas l'essentiel léegi mën nga génn léegi bu ko defee nga bës foofu noonu dem jëli sa miniature miniature moo ci kaw moo nekk YouTube kii bi quoi léegi boo ko jëlee gis nga da ngay dem jëli sa benn miniature nga ñëw def ko fi quoi mais dañuy jël benn fond vert ñu teg ci parce que dañ leen wan rek mais seen miniature bi ngeen defar ba pare mu ngeen di ñëw teg ko ci léegi gis nga boo pare léegi lan ngay def euh, léegi boo paree lan ngay def da ngay def foofu noonu go live mais boo leen xoolee li avant ngeen koy def nag ba pare da ngeen dem dugg ci seen chaîne fi ngeen bëgg reprendre direct moo xam Instagram la wala euh, Facebook ngeen commencé seetaan vidéo ba pare bu ko defee ngeen soog a def action bii ni mais foofu boo leen xoolee musique son bi la foofu da ngeen koy activer. foofu pour pour roñe bi la quoi maanaam pour nga bañ yenn yenn kii di feeñ gis nga bu ñu ko activer gis nga benn fond bu xaw a noir day feeñ bu ñu ko désactiver day day dem mais boo leen bësee foofu noonu euh, pour loolu la mais boo leen xoolee lii may def nii avant ngeen a boo leen defee réglage ba pare balaa ngeen a démarrer live bi da ngeen dem ngeen commencé seetaan li nga xamante ni moom mooy live bi ngeen bëgg reprendre xam nga moo xam Instagram la wala Facebook xamante ni boo defee góore da gaaw dem dugg si live bi live bi commencé daw. mais bu da nga def go commencé ñëw di seetaan action bi la bi li ngay def mën na feeñ quoi waaw yi wanoon nañ leen ko moo tax ñëwaat di leen ko wanaat yi wanoon nañ leen ci vidéo beneen mais maanaam bu fekkee da nga bëgg a ay ay miniature sa kaw live exemple live bi nga reprendre gis nga boo bëggee jëli miniature ñëw di moins gis sa logo ñëw teg ko ci fii la gis nga sa logo boo ko bëggee teg xam nga foofu ngay jëlee boo balaayee vers à droite xam nga da ngay dem jëli sa média gis nga nga teg sa logo et cetera mais ñun defuñu logo dañ leen waan rek xam nga même fekkee bëgg a teg sa logo sax mën nga ci bind xam nga exemple nga bind sa turu chaîne positionné ko ci kaw quoi exemple gis nga boo ñëwee foofu pour musique la boo ci bëggee teg musique foofu pour texte la gis bëri day ñëw nga télécharge ci ban façon texte moo la neex exemple ñu jël bu simple bii nii rek wan la léegi boo ci cliquer mën nga ko renommer quoi exemple ñu ci mooy seen mobile TV rek pour wan la gis boo bësee seen mobile TV gis nga léegi ci kaw ci ci à gis nga flèche boobu moom la ñuy yokkee texte bi wala wàññi mais loolu intéressé léegi dañuy bës li nga xamante ne mooy ok gis nga dañuy bës doon enregistré ko gis nga léegi texte baa ngi nii bu ñu si appuyé rek ñu nga texte moo ngi nii fu la neex nga koy teg ci kaw live bi quoi gis nga fu la neex koy teg ci kaw live bi moo nekk nii ko gis nga fu la neex nga koy teg ci kaw live bi léegi gis nga c'est léegi nag euh, mais partie bi may wan ni live bii ne boo koy def surtout bu Instagram bi maanaam boo taxawal téléphone bi nii fii pour Instagram la mooy taayu 16 9 booy def live bi nii Instagram taayu téléphone dafa war a taxaw mais bu fekkee da ngay reprendre beneen live boo xam ci Facebook la wala ci YouTube xam nga nga bëgg taayu 16 9 bi ñëw comme ça taayu YouTube bi ñëw da ngay dëngal téléphone loolu ci vraiment vidéo bi nañ leen ko gën a expliquer léegi commencé nañ live bi. gis ngeen commencé nañ live bi léegi live mu ngi euh, def arrière plan mu ngi waaj a daw léegi dañuy profité ñu dem si li nga xamante ne moom mooy Facebook commencé. seetaan vidéo gis nga benn vidéo mu ngi nii gis lu ma la wax ñu bësee fii nii gis nga buñ bësee fii gis nga vidéo bi léegi nii la mel xam ngeen vidéo bi lii live bu doon daw la léegi live bi ñu ngi koy am di ko divisé wat suñu chaîne li nga xam mooy suñu chaîne YouTube gis nga live mu ngi daw léegi lii nag laa leen wax léegi li bu fekkee dangeen bëgg live bi mel nii boo leen def euh, action yi ma wane nii da ngeen di dëngal seen téléphone ko téléphone bi jël taa YouTube mooy tax live bi nii carré carré bi di mën a daw sa YouTube nii ko amee ni nga ko bëggee bu fekkee danga nga bëgg a dëngal téléphone bi da nga bëgg a taxawal téléphone bi ñëw ci YouTube bi dëngal li nga xamante ne moom mooy euh, dimanche ñëw ci Facebook dëngal li nga xamante ne moom mooy live bi xam nga affaire day ndaw écran bu ndaw ndaw lay affiché quoi j'espère ko comprendre ngeen li ma bëgg wax sama kii moo am difficulté moo tax affaire di dagg di dagg nii rek xaw ma nag ba xam di ngeen comprendre am déet quoi. léegi enregistré léegi lan la ñuy def dañuy demaat ci li nga xamante ni moom mooy euh, suñu prisme live pour euh, dagg li nga xamante ni moom mooy live arrêté ko gis nga gis nga moom la ñuy waxaat fi li ma leen doon expliqué moom lay waxaat foofu léegi fii la ñuy arrêté bi léegi dañ koy arrêté ci kaw fee mooy ànd maanaam ñu pare nañ si live bi gis nga léegi affaire bi mu ngi enregistré wu quoi live bi ñu doon def live bi nag guddul dañ leen wan rek parce que ñun defuñ live mais ñi ñuy demande question moo tax ñu ñëw di leen wan. gis nga léegi live bi moo nekk nii nga bu may dugg ci Facebook bi di leen di dem di def action yi moo tax ma ne leen action bi da ngeen koy dem def ko ba pare bu dul loolu li ngeen def ni yëpp day daw seen chaîne YouTube bi quoi léegi dañuy dem su suñu YouTube bu ko defee ñu wan leen vidéo bu ñu doon def vidéo live gis nga vidéo moo nekk nii si cliquer gis nga léegi vidéo moo nekk nii maintenant léegi bu ñu cliquer ci dem seetaan ko gis nga non reporté laa ko def moo tax dawul ci biir chaîne bi ko gis na Ousmane Sonko en direct moo nekk noonu léegi buñ si bësee pour dem seetaan li nga xamante ne moom mooy vidéo bi léegi gis ngeen vidéo moom moo nekk ni mu commencé daw mais fekk da ngeen ko def public nag xam nga action bi day daw mais li ma leen di wax moo nekk ni gis nga may dem ci chaîne yu ci page Ousmane Sonko bi yëpp yëpp gis nga da doon feeñ moo tax ma action bi da ngeen koy def ba pare soog a dem dugg ci live bi soog a soog a démarrer live bi ko gis ngeen li nga li ma leen doon wax lii nag taay bii nag bu fekkoon Instagram nga koy def day baax mais yéen a gis maa ngi dugg Facebook gis neen écran bi ni mu ndawee li ma leen doon expliqué ni mu tuutee lan moo waral écran bi fii nii tuuti parce que bu may def vidéo bi ci live ba may def paramétrage taxawal téléphone bi téléphone bi taille neuf seizième laa ko jël taille seize neuvième laa ko jël mooy maanaam dama ko taxawal quoi taille bu mag bi léegi bu fekkee da ngeen di bëgg affaire bi jël taille yu Facebook bi normal taille yu YouTube bi normal da ngeen di dëngal téléphone ba leen def action bi way j'espère que comprendre ngeen li ma bëgg a wax quoi maanaam action ba leen ko def bu leen taxawal téléphone bi xam nga da ngeen koy dëngal mu jël taayu youtube bi quoi euh, ngeen mën a bi normal comme ça fii laa ngi nii doon defar paramétrage fii nii xam nga léegi damay dëngal téléphone bi mu jël rotation mel ni kuy caméra quoi gis na nii laa koy dëngale yéen bu fekkee da ngeen bëgg reprendre live bi moom youtube la wala bi bu téléphone bi taxawee nii xam nga da dëngal nii gis gis nga léegi nga defar sa paramétrage yi soo ko dem dugg li nga xamante ne moom mooy sa Facebook wala sa YouTube xam nga commencé seetaan vidéo bi rek xam nga bi noonu rek euh, live bi li nga xamante ne moom mooy sa chaîne YouTube normal am benn problème nii lay demee quoi j'espère que comprendre ngeen aussi j'espère que cette astuce vous a plu ñu leen wax ngeen abonné parce que Prisme Live dafa xaw compliqué mais boo leen di seetaan quelques tutoriels la di ngeen comprendre li nga xamante ne moom mooy application bi